yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu naafila diis guddi fukkeel gi ci weeru koor sopp nañ ku ci julli ñeenti rakkaan ñeenti rakkaan rakkaan bu ci nekk nga jàng faatixa benn yoon jàng ayatul kursi yu benn yoon jàngi inna anzalnaahu fukki yoon ak ñaar bala moo jóge fa mu ko doon jullee des na ko jéggal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj te des na ko bindal tuyaabay juróom-ñaar fukki nit ci way dëggal yi ak tuyaabay juróom nit ci ñi dee ci jihaad te bala moo génn àdduna dana mos ci lu bokk ci meññetum ajjana te des na ko ràmmuloo juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne sawara yayoon na leen soppe yi ku ci bëgg yeneen i leeral nga dellu ci xurratu ayni bu sëriñ Chouhaïbou bu Mbàkke page 144 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi